Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. Bismillahirrahmanirrahim. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, képp ku toog ci baas bi rek na wax sëñ Modou Kara Sylla yal na fi yàgg te wér. nañ ko baamtu ñetti yoon. Modou Kara Sylla yàlla na fi yàgg te wér waaw sëñ Modou Kara Sylla yàlla na fi yàgg te euh, ci tënk rek euh, jërëjëf sëñ Xaadim euh, li ma ci bëgg yokk tuuti rek mooy fédération bi ni muy doxee macha allah wax dëgg yàlla bëgg nañ ci kontaan nañ te ku ne xam na ne am na avancement bu baax a baax a baax a baax waaye li nga xam ne moom laa ci bëgg a yokk rek mooy doxalin bi maanaam organisation bi ndax am na sëriñ bi ku bax la man ku mané ne sëñ Modou le Sylla la mooy sama sere ak mané ci ku bax billahi wallahi ku bax rek la ci tek kon am nañ ku bax ku am ku bax nak da nga wara xam ni ngay doxé nan la ndax ku ne gis na Hizbut tarxiya numuy doxé ak Touba ci kanam ak yenen ak yenen mbolo nak ñoo dañ ci am pas-pas nañ fexe pas-pas bobu sëñ bi day faral diko ko di ñu wax mbirum pas-pas euh, am nañ talib, sëriñ bi am na talib yo xam ñi ngi bitim rew sank rek maa ngi ak euh, Cheikh diwan ak khadim bu ñu xoolee sas yi sax daanaka ñi nekk ay Amérique ak ñi nekk ay France daanaka ñi nekk fii sax ñoo leen gën a euh, gën a nekk jàmbaar te nag wax dëgg yàlla loolu ñàkk booloo la ak ñàkk organisation ndax lu mu gàtt gàtt gàtt sëriñ bi bu amee juróomi taalibe yu nekk Amérique rek am pas-pas rek war nañoo mën a indi juróomi million par euh, euh, waxtu wu nekk saa su ne bu màggal jotee wala gàmmu jot wala leneen jot lépp pas-pas la nañ xam ne li ñu am amul lu ko gën a kawe mooy Serigne Touba te kii nga xam ne moom la ñu yàlla booleel muy sëñ Modou Kara Sylla mi wallaahi woon nañu yoon wi ndax bépp liggéey bu ñuy liggéey rek moom moo nekk ci kanam ñun dañoo yaafus ngeen jéggal ma ci wax ji nag sama bopp nag laa jiital ci kanam ndax li tax ñu yaafus mooy mbooloo mi màggal yi ak gàmmu yi di am ay ay boru ay million wala boru juróom-ñeent téeméer junni wala lu ko ëpp sax loolu jaaduwul tegul ci yoon kon nañ góorgóorlu ci ci yoon wi fonk daayira di di di joxe sasu daara yi maanaam euh, addiya yi ñu koy joxe bu baax a baax a baax di góorgóorlu xam ne tamit addiya sëriñ bi wax na ko amul ko gën a kawe muy góor muy jigéen nag képp koo xam ne kii dellu nga sa gox na nga soññ ñi nga nekkal ñu góorgóorlu nga ku ne xam ne sa bopp ngay liggéeyal sëriñ bi daf ñuy dimbali de waaye suñu bopp la liggéeyal fële ku fa loo fa fekk rek sa yaa ko fa def yaa ko fa def mais loo fa deful doo ko fa fekk sëñ wax nañu ko kon nag sëñ xaadim li nga wax maa ngi ci sant bu baax sëñ bi loolu ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew te ñun amuñu seeni i coordonnées nga fexe ñu am ko ñu bu jéem a jokkoo ak ñoom waxtaan ak ñoom bu baax a baax a baax bëgg nañ daal yoon wi doxee neneen ba bu ñu soxlaatee rek bu ñu soxla woon 10 million sax ñu mën ko teg ci table bi kon loolu laa amoon loo xam ne li moom laa koy wax ñu xam ne ki ñu am ku baax la néegu ñax bi nekkoon fii man ak sama waajuru góor toog nañ ca fekk fa waajuram bu góor sëñ Cheikh si la diwaan wër na Serigne Touba boobu maa ngi am juróom-ñaari sama waajur bu góor ne maam Thierno mi dama ko dugal école mu ne ma loo bëgg a doon ma ne ko maître man boo xaw ma yeneen fonction yi sax mu ne ma la mu ne ko lan mooy maître mu ne ko maître mooy jàngalekat mu ne ma mu teg loxoom ndajooram yàgg ne ma kon di nga doon waaye boo ko doonee bul sàggane yoon wi jamono di dox jamono dox bima amé sama baccalauréat ba dem université bala bobu sax amna concours bu ma réussiroon war a dem dem France mais dew ma dama tawaton légui bima démé demee école normale supérieure yalla seede bima génné may nékkone major def formation école normale supérieure bima génné génnee lycée Blaise Diagne sama sama formation bépp fofu la ko défé bama génné lycée Diagne ñu yóbbaan ma ci benn école internationale ku ne xam na waka xëy na West African College of the Atlantic bon benn école la boo xam ne école bilingue français anglais la ñuy kii foofu ba léegi nii jël naa retraite mais maa ngi continuer ñaan boobu moo ma topp ba léegi moom nag li ma defal bëgguma guddal yàgg naa ko wax ci jotaay lim ñu defal sax laay wax ndax képp ku toog fii tey ci jataay bi rek sëñ Modou Kara la dimbali na la ndax jataay bi jataayu diine la jataay jataayu yiw la am na ñu ne ci leneen tey ji mais ñun ñu ngi ci jataay bi di ci tagg yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba kon maa ngi ñaanal rek sëriñ bi yàgg sa njaboot gi yal na yàlla fekk seen fan guddal ko lool te mu ànd ak sa njaboot gi ak sa